AZ Couture, chez Madame Daou Astuzara, vente de prêt-à-porter tradit moderne et confection de tenues sur mesure. Coupe simple, haute couture, broderie pour hommes et femmes. Nous sommes à Liberté 6, juste après l'école Nolivet. 77 446 51 37. Pour de beaux cheveux forts et résistants, je choisis la gamme Profective. Des belles des puissants et stylés. Des soins qui vous ressemblent. Dream. un rêve de crème. Pau <laughs> Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. man may préféré ndax ay produit baara musu lay toggé dañoo naturel set te bax ci wergu yaram. <laughs> sama jëkkër man may préféré ay produit baara musu lay togg dañoo naturel set te bax ci wergu yaram. man bu jeun moy suma plat préféré. bon man la dund jaam ci sa baara musu. luy baara musu. baara musu moy femme préférée. en femme préférée xaar man. Baramousso moi ma épice préférée. <laughs> Baramousso, 100% naturel De femmes et épices you bar. poivre tout, et piment Bien pour xam ne da di saf safal Con Baramousso. <laughs> Ken du Aujourd'hui, c'est le jour. Je dois briller, épater, éblouir. Ma devise bien dans ma peau, bien dans ma tête. Ok, je suis prête. C'est parti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 formulé aux États-Unis et composé d'huile merveilleuse, le défrisant Perfective Mega Growth procure tous les bienfaits à vos cheveux. Pour de beaux cheveux forts et résistants, je choisis la gamme Profective. tubaab la kër gi defay neex sama wujju tubaab la kër gi defay neex ben bay ne woon le ku wàcc sa and and bo dem fekk borom tok bo ni mbaay jeeg biir la puudaram bu saf ken mon ko mon waxu malak wara a ñam mati mbaay pak ñaari boor la ken xamul fu mu far intérim rek la jiital saara tubaab italien bi ñew na ni daawu desi bu joon ani du jeex jeexi sama wujju tubaab tubaab bu xam aadana sama wujju tubaab la tubaab bu

bien que très gros. wallaay mbaay man dama di géwél te gis nga góoru géwél dafay bëgg lu baax dafay bëgg lu neex dafay bëgg lu naturel hm. mbaay baa xam nga ni ñett ma gënal ñett mbaay da neex <laughs> lan mooy ñett moom a gënal ñett li loolu sax. ànd. Hmm. waaw. moom a gënal sauvage. oh mais lu ma ci mën. benn. cuuraay moom a gënal parfum de chambre. oh ñaar. cere moom a gënal sous-zéré. ñaf. lu ma ci mën. cuuraay de chambre waaye lu ma ci

am na qualité yu am léegi yoo xamante ni que ah, am na xel. waaw am na beurre de cacao tu connais pas beurre de cacao. su ma sonnee yaa ma indee. man li ko gën neex ci yow. sa baaraam bu ndaw bi ngay jël di ko sama nopp yi waaw ah, ah, waaw yow nga. ah c'est pour yow rek. gis nga mbaay yow da ngay cuuraay ba mu neex di nembali. di ma bës. ba li ma gën a neex ci yow. dàmp gi may dàmp dima di dàmp <laughs> di dàmp may mel ni liir bu am un mois waaw. mbaay dafa neex. waaw mbaay da ngaa lool da laaj. non da ngéwale. <laughs> waaye ba xam nga ni jamono ji ñu baa xam nga ni su ma dee woon léegi dem àjjana ma dem fu ma miin wallahi yàlla xam na ko ndax li may dund ak yow nii hmm. àjjana kase la oh, xoolal xet gu neex gi may nooyi ci biir néeg bi te du ma étouffé du ma jox cancer xaw ma kañ la jigéenu sénégalais yi rek di comprendre ni ngi ray sen jëkkeer yi. dañuy la de. ñaf. ñaf si nga bakam jamm la bëgg. <laughs> dëgg la. su ko mëne am waye man day mbaay fu mu nekk ni jamm rek lay dund ak yow. ndeysaan c'est ça que je veux. gis nga ngoni buma ay fi ay parfum de chambre. ay huiles essentielles. i ay huiles gaz ciel. ay huiles pétrole ciel. ay mbaay. <laughs> kon da yaa ngi huile. li ëpp na de. ngóone xam nga nucléaire centrale nucléaire bu explosé. Hmm. mbaay gis nga central nucléaire bu explosé.

taarix la xista la waaw dafa am benn waykatu tubaab bu mm. mag mm. waaw waaw bu ma sa wax ni autant suspendre ton vol mm. gis bu ma xëyee ba jàkkaarloo sa kanam damay am lu ma neex eh. mbaay su ma la amul woon damay doon connexion téléchargé la maa la wax lii tout le monde sait que je t'aime. mbaay yow la nopp. Ah. So bëggee suñu and neex yow dang may nopp. nopp na la mbaay Yalla xam na ko. mbaay yow la nopp So bëggee suñu and neex mbaay dang may nopp. Yalla xam na ni que je t'aime. mbaay yow laa nopp. Ah. So bëggee suñu and neex mbaay dang may nopp. Ngoné je t'aime. Mhm. comme la poisson aime le leur de la mer. Je t'aime, Goni, mm-hmm. Je t'aime comme l'arbre aime la taille de la peluche. eh eh eh. est-ce que tu nga que tu sama pour dire vrai. Bob man Ouais. Je te le jure, je t'aime. Tu me jures ça C'est toi que j'aime. C'est moi que tu aimes. Yalla xam Tu n'aimes pas Angouna? Non, gis nga Sara. je beugé may Si j'étais à côté de toi, ne parle pas d'elle. Non, ça ne parle pas d'elle. Voilà. I love you too. Oh, may gis nga borom kër. Dafa war di bëggal jabaram ci lalam. Niaf <laughs> muy ñami ñami loolu la yàlla du noonu la da nga war di ma di i love you waaye mais man bëgg mbaay xanaa xamul ni bu jabar ko war di bégal billaay mbaay muy ree xanaa xam lolo waral mooy boo demee rek damay wéet ci saase damay mel ni am moitié daal bu ci xam <laughs> i love you yuraa my heart. oh <laughs> maa la wax lii ndax ñu ay géwél lañu man je fais tous les langues xam nga ni ma la jegee bu doon mom fé lay tok. ah bon. ndax daf may jox xétu wañ. Ah. <laughs> ah bébé La laatal sa loxo bu ndaw bi bara. Ah waaw nga dugal ko fi. Kay ma dafa ko. dama fee la kuruj kuruj karaj karaj. yàpp bëre wuyu. wallaay. yow saay saay bu mag. wallaay. Sara. <laughs> waaye sama jëkkër jaa ngi dee. <laughs> makan. Ehi, ma vabbè. Questa Ma sol ma ini. Ini la Bambu kuti dama fi genn. Ñaf. Ñel def. Nengeñ ma nengeñ kor nopp neen duma wacc. ko ñew jonga ma ko sel bu ko ci nat Do sax kër gi tey dañoo war a bonheur. <laughs> yaa ree ba bii xiixal nii. yaa ngi mel ku tox yàmba yi li lan la. xol yi day feex <laughs> sama xol baa ngi mel ni xolu yaayu saajo maane ndax ndax bonheur. <laughs> xaw sedd wuy yaay yooyu. billaay mati tuxuma damaa naan. bay jayax teex say kaddu mak la nan ba man neexul ba neexul nak waye mbay mais est-ce que xam nga dafa jonge eh? waw ay kaddom sedd na guyu ba melni glace neex lol ba melni sugar ay ngori wasara waaw wasara looy reetaan ni iya yëm nga yo saara da nga tux yam ba mande de ne de yak ngure mbayam mati kuma li ma dege mo ma mandi do waya gune par père de la dure ay science mbaa xam nga nak nit dina ba jek hmm? te fekk na la ca biiram mage na wala muy xalaat xalaatu mag mbaay xale nga bàyyi sa xale bi ngay sa mi nga yóbbu démb ah mbaay xale bu tuuti nga yow la ngay xalaat ay dóor science dóor science yu yàgg yooyu mbaay ah, waaw nga ko jàppee ko dafa yàgg tàmbee la fi bàyyi xamoo fi diaspora bi tool en tout cas mbaay sa mag avoué na avoué lu la avoué Même hein? Illuminez votre peau avec Infiniclear, le nouveau soin capteur de lumière enrichi du complexe 3R qui réduit les taches, ravive le teint et régénère la peau. Infiniclear associe le bêta-carotène à la vitamine E dans des textures hydratantes et ultra fondantes. Unifiée, repulpée, satinée, votre peau attire la lumière. Vous êtes rayonnante. Infiniclear, l'éclat parfait.

lii ma dégg nga wax ko fi yëpp de ne Père la ko wax ay waxi dóor la waxi góor gu am ñaari jabar cuuj fii cuuj fee eh moom Père na boo bëggee dégg dëgg yow la Mati yow nga doy waar nga garaaw hmm. loo ko xamee loolu lépp jarta laaj am benn solo am foofu nga ama gone xam nga Ami Njaay taasukat nee na góor bu gisee li ko jaaxal nopp yaay taxaw bu ñafa ngi dellu ne xam nga bu la Fanta Mbaye ma ngi juula yaayu xën la. wura dafa dem ba nelaw xel ma dem ci xel sama jëkk tolotul foofu bayyi yoyu boko jappé waxi laban nga yobbu ko ci dama exprimer wu comme laban mais waxal ni xamal ni waxuma la waxi laban fim nek ni mati dama nek ci bonheur buguma ko mako ko damay bonheur ngay bonheur du gis nga fi nga nim ni <laughs> nga jékki-jékki jant bi fenk kon japp ni fi nga tok ni da ngay bonheur à tout moment malheur mën na jow te piscine bank sa ginnaw doy ko sour lo wax baax na heure bo ma fekke mo bonheur nga bëgg ma andir malheur waye duma ko def tay tey moom may bonheur la jël mon père kuy madame bonheur man damay bonheur ba neex neexu ma koy bonheur lamuy dund feulé ay ay <laughs> waaw waaye tey dinaa gën Ngone. naam. Ngone man xam na lila la moom ba ngay ree mel ni ku tux ñamba. <laughs> astafurlah. ci. crédit. ah mais c'est du sérieux yamba eh ay waxi mon père la bolé ak sow ni ko secc naan waaw wax yu neex ba mel ni galas sedd guy nag teg ci te yow sax nag saara yaa may bëgg jommal ci biir kër gi yow loo gis ak loo xam ak wax bay xam mon père li may wax man ngoni xool ma boo bëgg dëgg dëgg dëgg très bien Sara est que xam nga ni man yow laa nopp waaw waaw xam na ko wallaay wallaay wallaay ee eh waay ndaw Samba waa Sara waa beer mel ni kakkatar bu ñëwee fii zone bu vert. la maison de verre. waaw transparent. transparent. Eh waay ndaw Samba. may wax nag mu def ñu ay poupées. Hmm. nañ koy def. tey la ko yaar. Hmm. man dama doon goni mbaay yow da nga doon sara mbaay yow dinaa fanaan ci sa sa nekk yow di nga fanaan sama nekk. ah ñu def permutation de chambre on s'échange. permettez. tu Ngone. yaa def sa Tu es Ngone. ba metti Tu es metti kay sa Ngone. Hmm? Ngone du Ngone. mais hmm? tout rek Ngone tu yow jaba yaay bour. ah. la Linguère du Kajoor. Mm. Linguère du Kajoor. Mm. foog nga genn sa fulla foog nga genn sa fit. voilà c'est ça. sara aujourd'hui on se samaye pas. on se samaye pas aujourd'hui nous sommes ensemble jàmm rek ngam deng ya nga yaay sama chérie kaay kaay mu foofu dégg sa way Ki, ki, ki, bandom la. Permba. ah. doom bu ara. doom bu ara. très bien. Hmm? dégg bul jooy et bul fàtte après la pluie c'est le sama xel dem na si sama xarit boobu beau temps. Ah, neex beau temps. la moom. borom baax la. <laughs> waaw dafa njool lii. ci kaw ci kaw mu gën a njool kii. bu hmm? waaw. bu ah, moom doo nelaw de du mel ni kii day nelaw rek. nelaw waaw. léegi suñ sëyul woon ak moom père duñ sëy ak bootaa. ci seen seen <laughs> yàlla nga gravé. waaye <laughs> yaay tay ñu kii tay non ñu ko door. Mm-hmm. ba suñu loxo da ko laal. Mm-hmm. je te jure mm-hmm. sur yow léegi yow tamit nga nekk doomu Al Capone. pour laare fa la naatu mati mama ma wax ah. ni da ngaa feebar waaye mbaay jàpp ni li la feebar moo ma man mi waaw baadu ñaari fan yi ma am ci saara jaru ko gis nga tubaab bi bàyyi ko ci biir rek parce que man yow nag bu ñuul bu ayewul noo def mu def ay grimage ba mu dugg ci biir néegam waaw waaw jëggal ma waaw te moom nabatuma ko nag bu ñuul man yow laa nopp c'est toi que j'aime waaw yàlla xam na ko waaw mbaay man yow laa bëgg ah yàlla xam na ko wallaay waaw waaw est-ce fii yaa fi ne yaa fi ne tey yaa fi nekkoon démb te barki démb it yaa fi ne je t'aime Ngoné ñëpp xam nañu dama laa bëgg gis nga si je me rappelle ah mon yoo bi ñuy njëkk a gis a aéroport ci laa la sentir ci laa dagg. fu mu nekk nii moom yaa may ñol-ñol di ma bong-bong di ma tong-tong waaw ah, yàlla xam na ko ah, defa lu la neex ci man te gis nga Sara mu reem yow Ngoné Mbaye mi ngay bàyyi xel jaru ko jaru ko tu es plus belle que elle ah yalla xam na ko na t'inquiète pas jarul febar. ah ah te mom ma wax la Est-ce que moo fanaanee ci mom? bu guddi joté. waañ la may xeeñu waañ station de cuisine ah ah Ma la wax li. tu trouve ça normal Hmm? ñëf Sara surtout El Capone waaw ah. ah, waaw jàbba yaay buur hmm. xoolal tubaab bàyyi woote moom su ma ayee ci moom ñaari fan du ma may dara waaw ah, daf ma koy teg rek waaye garaawul mbaay xam nga nu ñuy def bàyyil ma dem toppatoo ko et annonce-toi bon l'appariement Que Dieu vous garde. Je t'aime, bye.

doomal Capone wala Joma yaay bur waxal waxal. wala. man. ah ah ah. yow mbay mu no bay ni nga mel yow yin yéen góor yi sax en general lay wax. wala dañu ma yak mais du sama jikko yalla xamna mu no len bay li ngeen mel ngeen ne ñu ah yow lu tax nga yak nga yak sa jabot nga yak sa awo bi nga ak sa man doomal Capone. bul maa fantoo de seen aawa yàq seen ñaareel boo leen ayee seen ñaareel yàq seen ñetteel boo leen seen ñetteel yàq seen ñeenteel ba kañ. wala dañu maa yàq. léegi man damaa xëy. yow musuloo xasaw man maa xasaw man mii maa xasaw casque blanc. Pau <laughs> Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié.